wa inni u'iizuhaa bika wa zurriyatahaa mina shaytaani rajiim rabbi a'uuzu bika min hamazaati shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp mbokki lislaam ji yëpp leen jox seen wàccuwaay leen ñaanal jàmm di ñaan suñuy kàddu fekk leen ci jàmm ak yërmande yàlla ak ak njégalam dañuy dellu siwaat ci suñu jotaayal yóbbulug ndaw ñi muy jotaayal xam-xam di jotaayal fàttalikonte ñu doon jàngale téere bi ñuy wax zaadu zawi taxallumi ñu nekkoon nag ci bunt bi nga xam te ni sëriñ bi doon na fi jàngale ñeenti noon yi nga xamante ni ñoo ànd ak doomu aadama bi te ñeenti noon yi muy noon yoo xamante ni dafay yàqal doomu aadama nan lay fexe ba moytu noon yooyee yàqal gi koy yàqal te mooy àdduna bakkan bànneex ak seytaan ginnaaw bañ ci jógee nag ñu fas mottali téere bi ay ndénkaane yoo xamante ni mooy nekk ci mujjantalu téere bi moo tax sëriñ bi ne ne tatimmatun lii ak mottali la fil xaddi ci ñaaxe mooy soññ rek alal jooxe ci xeex ci xiif waxtaan ki sibaxi ak bàyyi ak regg mu ne aleykum wu dénk naa leen bil jooxe ci ak xiif innal jooxa naka xiif huwa moom moo allazi mooy la nga xam te ni yu xasibu dana sellal almutia aji topp yàlla ji mu ne kon dénk naa leen ak xiif ngeen watali ko regg xiif nag ni ko waxee woon xiif goo xam te nii da ngay dem ba loof ba doo mën na def dara déedéet waaye da xiif xiif goo xam te nii xiif gi digg doomu lay doon nga xam ne du la sonal dina tax nga sawar say cër sawar nga mën a jaam yàlla xiif googee lay wax mu ne xiif googi nag day sellal xolub ki nga xam te dafay bëgg a topp yàlla dafay bëgg a jaamu boroomam subhaanahu wa taala xiif boobu day jàppandil ay mbiram te day sellal jëmmam ak xolam moo tax mu dénk leen ko mu ne wajtahidu na ngeen farlu fii talabil xalaali ci sàkku lu lew wa huwa moom sàkku lu lew al mugarribu aji jegeñe la lisil jalaali ñeer yàlla mi aji màgg mu ne na ngeen sàkk lu lew farlu lool ci sàkk lu lew loolu lépp loo leen di sàkku rek ci wërsëg ci loo leen di jëfandikoo mu nekk lu lew ndax lu lew loolu kat daf lay dimbali di la jegeel sa borom day tax nga jegeel sa borom kon sàkk lu lew loo am solo la jëla bàyyi xel mu ne wajtahidu na ngeen farlu in niltumuhu neel am ngeen fextisaar ci gàttañ an sibahin walaf walif xiif fa innahu naka moom xiif nag rax suxtiraay muy bopp waru mu na ngeen farlu na ngeen teet ci boo amee lu lew boo leen sàkkoo lew ba pare ba ngeen am ko na ngeen ci gàttañ mooy bañ ci yàq sagam sàkku lu lew dafa jafe am lu lew moom lu jafe la boo leen amee bu ko yàq na ngeen farlu ci fonk ko bañ koo yàq bañ di lekk ba suur di yàq wattandi ko regg ndax kat ni ngeen xam ne regg mooy bopp waru waaw regg daal moom mooy bopp waru mooy li nga xam te ni mën nañu moo gën a moo nekk ca bopp kon na ngeen wattandi ko regg kon ni ngeen sàkkul lew te boo leen amee lew ngeen ko fonk bañ koo yàq def ci nànk bañ cee bañ di regg ba ëpp ndax regg ba ëpp kat baaxul moo tax mu ne is ngir si baaxu sax si reggu jëm mi nal xalaal ci lu lew mabda u kulli kulli say sarrin mooy tàmbali ma bépp ay fil axwaal ci mbir yi foofu sax loo xam te ni léwut waaye dana sàkk ba am ko di ca rek di ca lekk ba regg ba sa fees sa biir ba sa biir fees del ñaar loolu rek mooy tàmbalima bépp ay ci mbir kon nag lu lewut moom daanaka boo xoolee sax waxu ko lu lewut moom taxul muy wax ndax boo xoolee lu leew la ngeen sàkk waaye booy ko sàkkoo ba bañ caa ëppal di yàq ak di fees dell kon nag ne loolee mooy mooy di lekk ba rek ba sa biir fees kon moom waxi na kon loolu jërë bàyyi xel la nit ki di ab jullit war naa fexe ba lu muy sàkk ci ay wërsëg ci alal mu nekk lu lew waaye bu nekkee lu lew bu pare mu fexe ci bañ a ëppal ndax kat di nga gis nit ñoo xam ne dañ sàkku lu lew ba pare ëppal ca ba nañ koy jëfandikoo nekk loo xam te ni ak yàqale bi wala bu nekk saxlu lu te yàlla kat ëllëg amal xiyaam buy laaj nit ki daf koy laaj foo jëlee alal ji ak foo ko def ñaar yooyu jar a bàyyi xel foo ko jëlee ak foo ko def na nit mën naa jëlee alal fu baax def ca lu baaxut kon nag moo tax mu ne boo leen fexee ba góorgóorlu ba am lu leew ndax lu jafe la kon na ngeen góorgóorlu ci sàmm ko bañ koo pasal pasale bañ di ci def lu xam te lu waree su koo def mu ne fii bokk na ci moom rek regg ba tey minal aafaati ci ay gàkk-gàkk maa yoo xam te ne laa yox saa déef ko mën a lim dafii dina dikke sittun juróom benn minha ca moom rek xunaa fii lu tux saa ba def na ko takk nee nag moom rek moom am na juróom benn mbir yoo ay juróom benn yoo xamante ni ci ay gàkk-gàkk dina la ko limal fii nga xam ko ba nga xam ni ko mën a takk mën koo wattandiko waaye moom nag li muy def moom dafa bari ba nga xam ne mëneesu ko lim moom rek ay gàkkam dafa bari ba mënees koo waaye nag dina la indi fii juróom-benn yoo xam te ni boo ko limee mën koo jàpp te di ko wattatu ko juróom-benn yooyu nag dina ko lim ci kanam kon nag lu jar a bàyyi xel la kon noonu la ñuy gàttal sunu kàddu wàcce sunu kàddu fii ci sunu bindu tey ñu ñaanal ñëpp jàmm ñaan sunu moom dafa ñu yërmande ju mat ak njëggal ku mat. mooy ñu gudd fan ak wér dafa ñu xéwal du waaye sàmm ñu ñu lépp lu ñaw nañ suñu borom defal dégg ak suñu jaam yàlla kon ñu leen jox dig daje ci beneen jotaay insha allah rabbi in uridu illa al islaaha mastataxtu ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkalu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey